ngeen jot suñu vidéo nag a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko a xam waaye mbokk yi li may wax ñépp ko xam fi ko nit ñi gisee ci réseaux sociaux yi gis naa ko càmbar ko bu nekk loola du diine leneen la. leneen lag diine xamu ci dara day xaar ba loola ñëw ne ko attama mun ñoo tax nit ñi bàyyi ko waaye kuy tudd seexul xadim di tudd lislaam su ci dugalee loo xam ne lislaam xamu ko seexul xadim mosu koo dund te it bu ëllëgee dana ko layoo ak ñoom moo dund ci ay téeréem ne soo junjee boroom xel mu gàtt te xamut nanga nga jaar ca digg ba wa jawazu tasrixahu inda albalid in kaana laa yafhamu talwiixan yufiid su fekkee nit ki dafa sàgganaw nga ne ko waaw sëriñ bi tubay ñaata bouton lay am mu ne xam-xam maaral nga ne ko tubay bu amul ay bouton yet ñoor gi lu muy doon ci tiise bi ñëwee tubay yi lay doon wala ak mees gi ñuy def ci làmp yi lay doon mu ne xam-xam maaral xamul li koy wax sëñ ngaa jaar ci digg ba ne ko yaa ngi sàgganu nit ñi loolu mbirum sëñ tubaab bu fekkonte ne jigéen des na jaayanteek ak ci pas-pas bu mu mën a doon dañ di ko tuddee islam jullit ñi jaayanteeg xaj Aïcha radiyallahu anha yonent bi nee na ku dul yonent bi mën a gën a dëgg diine li mokkal ci xadis ñi si gën a mokkal ñi si gën a bari li mokkal ci la moom ndax mu ngi yonent bi dëkkoon sallallahu alayhi moo ko yar ma gën koo jegeel si junjoon na keroog ne xanaa kon liñ bëgg a wax mooy murid dañoo juumoon bi ñu jaayante si Mourou Moustapha te soxna Fatou ja nekk fi juumuy woon de seen tànk dañu ko tegoon ci sunna njuumte loolu xanaa war a seen doxamaa dabaatal bi suñ fal suñ Mourou Moustapha jógee suñ fallu murid jaayante suñ fal te suñ fallu ni soxna Fatou ja màgge suñ Mourou Moustapha la ko màgge xanaa kon murid dañoo juumoon foofa. sëñ Fallu moo fa njëkk a jóge soxna Fat Dia kon bi ñu jaayanteeg sëñ Ablaat soxna Fat ja mi ngi fa woon te soxna Fat Dia moom magante wut ak sëñ Ablaat lim ko magee ëpp na ñaar fukki at lu tax jaayante wu ñoom ñoom dañoo tegoon seen tànk ci sunna ndax sëñ Abdou Khadir mi ñu defoon imaam bi fi sëñ Fallu jógee bi fi sëñ Ablaat jógee imaamam nga moo xilaafa nga la boole nañ ko fale imam lañ jaayante waat ak moom te soxna Astu Gaawaan it mi ngi fi woon bi fi Sëñ Blaat nekkee ak soxna muslim soxna Astu Gaawaan moom ma koon Sëñ Blaat waaye loolu lépp taxutoon ñu jaayante rek kenn ci ay doomam xanaa mu ni sa tuumaal ne dañoo juumoon moo ne ñoom de bi fi jógee itam seen doom yu jigéen ya dañoo yem sa ñañ leen dénkoon ba tey jii ay gone yu jigéen lañ leen di jox ñu di leen yar yar la waan waaye góor gu dem di jaayante jigéen doonte doomi Seexul Xadim la murid yi teg seen tànk sunna yëpp mosuñu koo def. ngeen jot suñu vidéo nag si biir réew mi da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo leen vidéo ko ngir mën a